Tay dañu ñëwoon fii ci benn formation pour maintenir ne maire yi ak seen service technique yi lañ ko jagleloon programme Promobile Promobile le programme de modernisation des villes du Sénégal Promobile nag dina defar tali promobile dina faire aussi éclairage public promobile dina assainissement mais promobile aussi dina former maire services, service ndax am permettre infrastructure mais aussi permettre aussi ñu en charge gouvernance territoriale solo formation bi mais la présence ou maire yu bëri ñi and ak seen ay services euh, techniques di rafetlu aussi euh, AMS nu mu ñëwee di rafetlu aussi euh, presse bi ak formateur yi nga xamanteni ñom ñep ñew nañ fi tew lolu moy indi solo mom moy firnde aussi solo formation bi ñu ñew